mbooloo mi ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant suñuy ñaari waajur di sant suñu sëriñ suñu ab sàkkoor mu sëñ Seex Faal Ngunda di ñaanal sëñ Muntaxa Basiiru mu yàgg fi lool di ñaanal sëñ Seex Jëmb Faal mi xalifa général Baay Faal yi mu yàgg fi di ñaanal sëñ sëñ Bay Si Mansour waa Laayeen waa Tiwaawoon waa Njaasaan waa Kaolack xalifa généraux yëpp ñu ngi leen di ñaanal ñu yàgg fi lool te ànd ak wér booy jotaay bi nag li ko waral ñun ay xale lañ pour ñu woon sax jël fii parole ndax ñu fi toog mun naa ne ñun ñoo fi gën a ndaw mais gars yi jox ñu cër ñëw jóge ba dakaar déplacé wu fekk ñu fii kon loolu lu rëy rëy lu rëy rëy rëy ci ñun la te li tax ñu juge Dakar ñëw ba fii dëgg moo leen yëkkati tànki dëgg moo leen indi ndax bu loon dëgg duñ déplacé wu gën ñu doon ay champion déplacé wu jóge Dakar ñëw ba fii loolu dëgg rek moo ko man ko bu dul dëgg loolu du am. di rafetlu jotaay bi nag. wooy di wax ni man laay goote mobile mooy sama président. ndax li tax ma ni mobile mooy sama président. Mm-hmm. ñoom lañ mën a gis ñoom lañ mën a dégg. Mm-hmm. te tey jii nit ki buy ànd day ànd ak ki muy gis ak ki muy dégg ak ki koy informé. Mm-hmm. mais nit ki mënul ànd ak koo xamante ni buy dem du ko yëg buñ koy jox kenn du ko yëg luñ ciy def kenn du ko xam non man mënuma ànd ak kooku man ki may àndal mooy ki may informé loolu moo waral ma ni mobile mooy sama président. d'accord boo déggee noonu lan mooy jafe ci wàllu lamb. surtout yéen yi. waaw jeunes lutteurs moom mun naa ne lu Thiès kese. Mhm. jeunes lutteurs yi moom ñëppay dund lu metti ndax gars yi nekk ci kaw former seen association ci ñoom la yem rek. dañuy seet tourner seen biir rek ñun yëguñu tidduñu mais métti bi moom foo ko natt wees na foofu. mais ñun nag comme li saa fi wax sànq comme li comme li comme li comme li comme li Kona wax sànq comme li kii wax sànq Balla Diouf ñun ñu ngeeg suñu dignité ñun ay Baay Faal lañ. ndax dañoo xam ne ay xale lañ te bu daggul dikk. ñoo ngi sant yàlla bu wér nag. mais suñu làmb waroon na dépassé fii loolu lépp la ñàkk a dox gi ñàkk a làmb dox surtout ci jeunes lutteurs yi moo waral loolu mais ñu ngi sant ñu ngi gërëm waaw. lan ngeen jàpp ne moom ngeen war a def pour que jeunes lutteurs jeunes lutteurs yi mën a gis seen bopp ci làmb surtout fii à Thiès. waaw mooy comme lii rek. comme lii rek tey jii ay mobile ay Balla Diouf ay Kona yi nii. dañoo ñëw pour pour pour dooleel jeune leader yëpp moo waral ñu ñu ñu formé kuréel gii nii association bi waa ndax tey jii ñoom mën naa ni ñoom ay ay ay bopp lañ daal. tey jii ñun suñu lépp dañ koy bàyyi ak ñoom ndax jaar nañ ci mbër mu ndaw ba toll fii ñu toll tey kon xam nañ ñun catégorie bi ñu toll nii li ñuy jànkoonteel ñoom xam nañ ko ndax jaar nañ fa. mettiwaay bi xam nañ ko dañ dañ leen di bàyyi rek ñoom ñu doxal quoi ñu ngi seen ginnaaw ñun. mbas mi bokk na ci liy dox xaw a tëgg seen wàllu liggéey ñu ci làmb waaw mbas mi moom mun naa ni du du làmb kese ñëpp la laalandoo. ñëpp la laalandoo mais comme que ñu ngi tàmbalee bàyyi fubal bi ñuy fubal war nañ mën a ubbi làmb ji quoi ñun ñu bëre. waaw war nañ mën a ubbi làmb ñu bëre loolu laa am lu may lancer état bi ko